laqil lisaani waxlulan minhu lumuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abada waj'al kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana al-xikam falyahab bil mustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara ji waa at mi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yook siyaara waa daara xikmatul yawmi xaaj yëpp ak banqaas yi ci aju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 bésub jaamu yàlla la ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ragal yàlla la itam ndax bu ñu fàttali cosaan li danañ sant bu baax a baax a baax tey danañ ragal yàlla itam bu baax a baax te cosaan li waxoon nañ ko ca tàmbali ba muy ay jaam yoo xam ne suñu borom dalee na nattu ñu daal di ragal yàlla gëm ko daale koy delloo seen lépp yàlla gënal leen seen bakkan suñu borom daal leen dabak yërmandeem dabal leen ak ndimbalam daal leen koy sot soppil mbég ak taraanga ak sant kon nag lu bis bi neex neex ak lu taraanga yi bari bari bari war nañuy fàttaliku cosaan li ndax ñu gën a ragal yàlla waaye def ko itam ak sant yàlla ak xamee ci njariñul topp ndigalul yàlla ndigalul yàlla luy jariñe rek waaye du lore lu baax jigadiwul kenn lu bon it jigul kenn sëriñ Malick Bassine daana wax ne ku ne lu baax damaa jigul mu ne ah da ngaa yàkkamti lu baax dafa dajale ji bokk ya ba ñëpp dajee mu ànd ak ñoom rungu leen ñu ñëw yow ba àjjana mu ne lu bon da koo jigit nekk ci lu ko neex mu mel ni dafa neex ci moom mu ne ba tey dafa yàkkamti lu bon dafa dajale ci bokk ya ba bokk yépp dajee mu ñëw rungu leen ànd ak ñoom ñu dëkk waaja ba sawara yàlla na ci musal kon déglu yàlla du lore luy jariñe rekk la loolu it manis na ko jàngee ci bis bi ah, kon bis bi dafa am luñ ci am ñun bindeef yi am lu ci suñu borom tabaraka wa taala am te loolu itam leeral na ko ci alquran ndax suñu borom doyewul dara eh, eh, lu ragal yàlla doyewu ko dara ci ab jaam déedéet amu ci soxla buñ xoolee itam mbooleem jaamu yàlla yépp amu ci genn jaamu yàlla goo xam ne nii suñ borom doyee na ca dara dara loolu ragal yàlla gis nga julli sax suñ borom day wax ne lu diis la ci ñi ragalul yàlla kon nga xam ne ku ragalul yàlla sax julli da koy jafe wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin moom julli lu jafe la lu diis la ci ñi ragalul yàlla moo tax bu fekkee nit ki day julli sax te julli dafa ci moom benn jeexit ci bàyyiloo ko ay ñaawteef bu boobaa julli jariñatu ko day sëgg ko sigg rek waaye julli moom day tee day dox diggante nit ki ak def lu suñ borom tere inna salaata tanha anil fahshai wal munkar koor sax gis nga yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaxun kon do diplôme ragal yàlla rek lañ ci jëlee gis nga aj màkka tamit alxajju ashhuru maalumaat faman farada fiihi al hajja fala rafasa wala fusuuqa wala jidaala fi l hajji wa ma tafxalu min xayrin yaclamhu llah wa tazawadu fa inna xayra zaadi at taqwa te ngeen yóbbulu yóbbal bi gën nag mooy ragal yàlla noonu koy toppee ba jaamu yàlla yépp jeex naka noonu itam bis bii muy tabaski itam suñu borom dañoo wax ne xar yi ngeen ci rendi ak yére yi ngeen ci taaroo ak taraanga yi ngeen ci yendoo di ko joxalante ci seen biir loolu yéen ko moom waaye man yàlla li ma ci am mooy ragal yàlla gi ngeen ragal yàlla ba ngeen di ko def def ko ak jaamu yàlla ak fàttaliku yàlla ak sant yàlla lan yanaala allaha luumaha wala dimaahu walakin yanaaluhu moo tax mu wax ne eh, ndawal geeg deret jeeg yëpp yàlla soxlawu te moomu ko yéen ko moom ragal yàlla gi tax ngeen di ko def kon nag waxtu wu nekk lu ñuy def rek jaamu yàlla bu mu mën di doon ak yëngu bu mu mën di doon nañ ci jiital ragal suñu borom tabaraka taala buñ bëggee loola jariñ ñu eh, incha allahu danañ andiwaat bu subaa eh, sëñ Tuubaa ci jàngale mi nga xam ne def na ko ci ragal yàlla eh, gën gaa néew li muy jariñ mm, mbindeef ñoo ngi sant suñu borom tabaraka taala di ñaan mu wërsëgalee ñu ak